moo waral nu man jaajëf Sëriñ Saliou jaajëf sëriñ Saliou jaajëf jaajëf sëriñ Saliou barkeb Serigne Saliou barkeb Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou yoo xam ne li lépp liggéeyal Serigne Saliou la ndax amaana saa su ne ñu lii rek mooy suñu yitte muy liggéeyal Serigne Saliou. barke Serigne Saliou ndax moom rek lañ xam moom rek lan miin. jërëjëfat Serigne Saliou jërëjëfat Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou comme ni nga ko xamee mu nekk suñu troisième édition maanaam 2018 ba léegi euh, mu nekk loo xamante ne dañ koy def ñun lu may wax tout temps rek mooy suñu euh, décembre mooy suñu fin d'année ñu ñëw ziar ki nga xamante ne nii mooy sëñ Cheikh Saliou Mbacké am nañ mbégte lool ndax wax dëgg neex yàlla ñu woote di waaj ba tey ñu agsi si mbooloo mi yëpp ñëw wuy suñu ndax ku gis ni nekk suñu ginnaaw nii rek di nga di sa xol day day day sedd te day day féex te dëgg neex yàlla fi mu toll nii mbégte lañ lañ àndal ba daanaka kàddu gi sax mënuñ koo wax wax ak comme niñ ko war a waxee ndax mbégte mi ñu àndal jóg. amaana doo ci yëg coono mbégte rek nga ci yëg te liggéey bi toll na foo xamee ni ñun góor yàlla yi ak soxna yi ku ci nekk rek da nga ciy wane sa pas-pas di ci wane ak bëgg goo xam nii man mi nga xam ne maay jëriñ sax du ma ko ci wane gën maa bëgg liggéey bi rawatina soxna loo leen sa loo leen sas rek dañ koy tegoo loo leen tegoo ñu tegoo ko. noonu la ko jëriñu fondation bi bëgg muy ci dal ci yar ak ci teggin ba nga xamante ne si ñëpp dina maa nekk ci condition yoo xamante ne si dina baax lool ba ñëpp nekk ci jàmm mën nañu bowaat ci jàmm ak salaam boo bëggee dëgg daal moom yomb na yombut waaye lépp daal ñu ngi ci ñu ciy sant sëriñ bi bu baax a baax ndax sëriñ bi daf la ci daf la ci tawfeex joo xamante ne si amaana li liñ ci bëggoon kawe na suñu njort kawe suñu njort goo xam ne wax dëgg ne yàlla xool sedd na lool te dara xewagul loolu daal moom mën nañu ko mën nañu ko teg seen loxo daal en tant que. jaajëf. suñ jëwriñ ji daan ko sàkk mooy ñu jéggalul ko suñu borom dafa mel ne ñun suñu jéggalu ma nga ca biir loola liggéeyam bii liggéeyam boobu nga xam ne moo baawaan ci suñuy xol ñun mag ndaw ñëpp jamonoonteeg moom li ko li ko sos. nee na li ko sos. sëriñ bi Xadim Moustapha dafa waxoon ne. nee na sëriñ bu mag bi Xadimul Moustapha dafa waxoon ne. mboolem anam yi ñuy jaamoo sa borom. mboolem yi ñuy jaamoo suñu borom. fu ci nekk jaamu naa ca. nee na fu ci nekk jaamu naa ca. ba am ci xel mu dal ak xol bu set. ba mu des nag. ba mu des nag. tarbiyatul naasihin. tarbiyatul naasihin. loolu mooy toqi ndaw ñi. loolu nag mooy toqi ndaw ñi. toqi ndaw nee na mooy toqi ndaw ñi. teg leen ci siraatal mustaqim. teg leen te jiitu leen ci. te jiitu leen ci. loolu mooy doxinu Cheikh Saliou. nee na loolu nag mooy doxinu li mu yéene ci ndaw ñi. nee na li mu yéene ci ndaw ñi. nee na yéene ci Serigne Saliou amoon ci ndaw ñi. yi nangu ga yéen ñii seere ngeen ci. yëg waaye nee na dane suñu diggante ak soriñ Touba. ak yëg la ak yëg la. moom. nee na neexu ñoo teqaleeg moom. mais cër bi nga xam nee na cër bii nga xam ne moom lañ doon sàkku nag. suñ jëwriñ te suñ jëwriñ ji daan ko sàkku. mu mooy ñu jéggalul ko sunu boroom. dafa mel ne ñun sunu jéggalu ma nga ca biir loola. yàlla nga nangul ñu sunu sant. ba mu jot yàlla nga nangul cant suñu cant ba mu jote cant yooyu. bu ko defee loolu leen li ñuy ñaan nag. bokk na ci. sàmmal na liimaan ak ak lixsaan suñu sama borom nga sàmmal ñu liimaan ak lislaam ak lixsaan ci suñuy xol ak suñuy cër. kon nag. nee na kon nag. nañ maase fedd di laxasaay rek. liggéey rek. jëf rek. xam nañ ne jamono jii de. xam ko seetloo. boo ko seetloo. daañu xam ne liñ naan jëf rek a takku. da nga xam ne liñ naan jëf rek a takku feeñ na ci ndax nee na ndax waaraate yi ak wax yi waxtu woo bëggee waaraate waxtu woo bëggee waaraate mbooloo ma ngay waxal boo juumee ci addis wala nga juum ci wa alxuraan ñu bari danañ la gàggante nee na kon loolooy tax nga xam ne wax ji xëy na am na njariñ waaye jëf ji nag fi ne moo jiitu. kon gaa yi rikk nañu jëf rek. kon waaye gaa yi rikk nañu jëf rek. nee na yàlla na suñu boroom kàttanal. defal ñu ci xol yi. kàttanal ñu ci xol yi. kàttanal ñu ci xol ñu ci xel yi. kàttanal ñu ci xel yi. wér gi. kàttanal ñu ci wér gi. kàttanal ñu ci wërsëg gi. te lépp yàlla nañ ko delloo ci lu ñu jox ngërëm. di ñaanal suñu yaakaar tey ak ëllëg Serigne Cheikh Saliou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. Sëriñ Saliou jaajëf